ay appel d'accord d'accord ah. mhm. donc Thierno Hadj Malick mi ngi doon wax sànq lu am solo sax ci wàllu sëriñ waaw hmm. voilà lu am solo la la Hadj Malick Dieng wax xam nga mhm. sëriñ mhm. ñun ñoo ko tuddee sëriñ mais dafa am nit benn doomu aadama boo xam ne dafa am rôle bu muy def ak jaam bi parce que kooku noonu noo ko après noo ko tuddee baax na waaw nga tuddee ko sëriñ baax moom lay joué ma tuddee ko cheikh bi nga tuddee ko ak nu mu mënti tudd rek mais rôle bi mu am mooy doomu aadama bi comme li nga wax léegi kenn du ko lekk kenn du ko kenn du ko naan. li mbokk mi léegi wax lu mu xat-xat. Mhm. boo ko woowee di nga ko jot mu gindi la. Mhm. loolu moom mooy rôle sëriñ. donc nag sëñ Maam Ousmane loolu la nekkoon donc nag jukko bi nga xamante ni moom la nitu yàlla yu mag yi làmboo nga xam ne mooy seen première euh, carte d' identité. Mhm. moom mooy ak tawaadoo wàcce sa wàcce sa bopp. donc Maam Ousmane jukko boobu lañ ko ñëpp xamee parce que tawaadoo boobu moo tax tey jii ñu bari xamuñu ko. Mm-hmm. parce que tey bu ñu la nee kan mooy sa waajur nga ne Cheikh Alhaji Abdou Aziz Dabakh ak maam Abdou fi mu toll ci àdduna mais su fekkoonte ni kii amul tawaado boobu am na lu mu bëgg ci àdduna mm-hmm. kon tey ñëpp xam nañ ko wala fu ne yaa ngi ko fay dégg mm-hmm. ci muy def yoo xamante ni ak wala ut do ut mbooloo wala ut euh, lu mu am ci jaam yi mais loolu nekkul li nga xamante ni moom mooy moom mooy ndonoon kon ndono li mu doon ci Cheikh Alhaji Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu mooy première jikko boobu maa ngi doon Cerno ci laa doon wax léegi tombé appel dugg mooy. waaw tey jii bu ñu la ni woon Cerno moment bi loo ñaan yàlla nangu ko bu dee sama genre gi. Mhm. moom xaalis ngay ñaan. mooy na xaalis bi bari rek. Mhm. wala nanga wala wala loo xamante ni sa mbirum àdduna lay jagal. Mhm. mais nitu yàlla yi bu ñu demee ba toll ci xaal boo xoolee seen tawasulaat yi ñuy def yëpp. moo tax ñoom dañoo boole ñaan ci seen daanaka boo xoolee nitu yàlla yëpp seen ay mbind li ci ëpp tawasulaat daf ci am doole mooy ay ñaan daf tawasul ci seen diggante ak seen borom. bu ñu dee ñaan yàlla ba toll ci xaal boo xam ne yëg nañu nii yàlla ubbi na bunt yi bu leen yàlla ne lan ngeen bëgg li ñu njëkk ñaan mooy yàlla yàlla nga jéggal ñu suñu bàkkaar mhm. xam nga yàlla xam nga euh, nu ko ma Abdoulaye anzir shifa yi يلا يلا نواتي يا حي يا ذا الجلال يا ذا الجلال والكبرياء والكمال ومنتهى كل شكوى مولاي معطي النفال بالباب عبد ضعيف ذنوبه كالجبال كالجبال غيس نغا فوفو غيس نغا تري بيان غيس نغا حاج تيرنو لي حاج مالك واخ لي مام عبد دا فا تاخاو سي بونتو يالا bàkk ko gis nga yàlla daf ñaan dañ koy jàng gis nga Thierno. waaw ñaan. Mhm. dañ koy jàng ñu bari dinañ ñaan te ñaan gi yàlla du ko nangu parce que xamuñu nu ñuy ñaanee. yàlla dafa am boo koy ñaan dafa am yooyu war a jiital ak loo ko war a wax loo xamante ni day tax booy booy pare ci loolu rek buntu bi ubbeeku xabul ngay am xabul moo tax mag ñi amoon xabul. Mhm. xabul mooy loo ñaan yàlla mu nangu ko parce que xam nañ fu ñuy jaar yàlla subhanahu wa taala. Mhm. maam Abdou dafa def yaa xayu yaa zal jalaali gis nga tagg na yàlla bàkk na ko ci ay turam. ci màggaayam kibriya kamal xayyu jalaal jamaal tur yàlla yooyu nga xamante ni yàlla rek mooy ki nga xam ne moo ko moo moo ko meloo mooy sifaat sifaat yoo xam nte ni moom yàlla rek moo ko ja jagoo mhm. bi mu maam Abdou bi mu ñaane yàlla ba yàlla ne ko bunt bi ubbeeku na mu ne bil ba bil nu ko waxee bil baabi abdun daayifun mhm. yàlla ne kan moo nekk ci bunt bi mu ne ko abdun daayifun bu ko woon man la rek Abdul Aziz Dabaax rek mhm. kon su boobaa ñu ne ko dellul parce que xadara nitu yàlla yi amul mana yow la moo yow la moo am. boo fëggee. Hmm. boo fëggee bu ñu nee kan la. Hmm. da nga naan yow la mais boo nee man la rek man la diw rek dèjà ñu la delluwaatal nga commencé waat à zéro moo tax kan la mu ne abdun daayifun abdun boobu waxu ci turam mooy jaamu yàlla la boo xamante ni. daayifun mais lan la lan la bëgg mu ne zunubuhu kal jibaali wala kal rimaali nee na jaam la boo xam ne ay bàkkaaram xoolal ñoom nit yàlla yi bu ñu demee ba toll foofu moom ay bàkkaar la tawat ci diggante ak boromam subhanahu wa pour pour war la ni ñoom xam gi ñu xam seen seen borom ak tawaadox wàcc seen bopp bi nga xam ne wàcc nañ ko seen bopp mhm. tey jii cerno bu leen ay nit yaakaaree tey jii boo doon bind mën nga tagg sa bopp wax say may mais ñoom dañuy wane toujours seen kanamu borom ne ay jaami la nga gis Seydi Hajji Malik radiyallahu anhu ca Taysir ak ca Fala Budda abdun zalilun faqirun xaashiun wajulun zu jazain asifun yallaahu yallaahu mhm. nga demaat ci Fala bu eh, ci Fala Budda nga dégg mu naan fa bay fa bayna yaday mawlaaya ma ziltu waaqifan zalilan xaqiran mustarishan li shiddati fa ana abdun fa ha ana abdun gis nga jitu baadiya sillati donc loolu moom mooy première jukko bi nga xamante ni moom la nit yàlla parce que dem nañ ba xam yàlla donc pour ñu dellu siwaat ci ci ci ci euh, ci bidaaya bi pour ñu mun ñoo yóbbu ñun il faut il faut ñu dellu siwaat fekk suñu ci fi nga xamante ni fa lañ toll kon sëñ maam Ousmane si Thierno première jikko bi nga xamante ni ñëpp seetlu woon nañ ko ci mooy ak tawaadoo mhm. tawaadoo boobu nag du question que dara lu dul xam bi ñu xam seen borom subhaanahu wa taala donc mhm. jaam bi fii bu xamul borom subhaanahu wa taala du ko mën a jaamu mhm. arif faarifuuni qabla an taabuduni fa in lam taarifuuni fa kayfa taabuduni yàlla ne da ngeen may xam maarifatu boobu nag il faut ñu xam maarifatu maarifatu billah maarifatu billah Thierno ak euh, moo tax ngay dégg ku mel ni sëñ maam Ousmane nekkoon aarif billah xam nga dafa am aalif aarif ak aalim bokkul xajma xam nga boo nee alima mooy xam na xam nga n'est-ce pas boo nee arafatam mooy xam na xam nga mais ñaar yooyu bokkuñu bokkuñu sens dëgg-dëgg yii yëpp xam na lay firi alima yaalamu ilman علم فعل مادين يعلم فعل مدارع علما مصدر عرف يعرف معرفة عرف فعل ماد يعرف فعل مدارع معرفة مصدر مي معرفة بوب نغا خامني نيوم خامنن كو معرفة بوب موي دانيو دما دم با نيوم سن جيم اك سن خيل ييب سينا ci borom bi subhanahu wa taala existé tul mais seen ruux mooy dund seen diggante seen borom parce que ruux moom jikko doomu aadama rek xamal ni kii ko jox sa bopp boo ko dénkee sa bopp sonal nga sa bopp tawaadoo te loolu gis nañ ko ci suñu maam suñu suñu suñu suñu suñu suñu bàyyi suñu sëriñ euh, sëriñ maam Ousmane Sy Dabakh boobu mooy premier jikko bi Thierno ci wàllu ak tawaadoo ñaareelu jikko bi nga xamante ni euh, nit yàlla daf koy am ma leeral ko bàyyi Hajj Malick mu développé mooy ah. at taqwa ragal yàlla ragal yàlla at taw maanaam boo paree ci at tawaado ñaareel bi moom bi ma bëgg wax mooy at tawbatu at mooy tuub dellu ci borom bi hmm. subhanahu wa taala tuub moo tax nga dégg maam Abdou ginnaaw bi ñu defee mu ne bil baabi Abdul Abdul Zalilun hmm. xam nga euh, fa najjinaa yaa xaaliqa shaytaan min ki c'est-à-dire que mag ñi dañu doon dem ba nga xam ni hmm. tawasulaat yi ñu doon def mooy ñoom ñu ngi fexe ba lépp loo xam ne seen diggante ak seen borom la ak lépp loo xam ne daf leen di xañ ñu egg ci borom bi subhanahu wa taala dañ koy muslu ci yàlla te loolu moom mooy deuxième bi mooy ak tawbatu mhm. parce lay mooy yóbbu ci yàlla mhm. parce que boo xamante ni Hajj Malick martaba bu am solo la ci espace suufi ci wàllu tasawuf mhm. nga gis ni fu ñu toll xam nga léeg-léeg nga gis euh, xoolal tawasulaat yi kon toujours dama lay delloo ci tawasulaat yi nga xamante ni yii Seydi Hajj Malick moo ko bind yii Mame Khalifa yii mam Mansour yii mam Abdou ak mam Habib c'est-à-dire que boo xoolee seen ay mbind da ngay dem a dem ba nga xam ne ñii dañoo jeex takk ci yàlla c'est-à-dire que moment bi ñuy wax ñoom existé tuñu parce que dañu xam sa borom parce que borom bi subhanahu wa taala boo ko xamee dëgg dëgg dëgg moom di nga ko moytandiku moo tax ñoom fa tabarakallahu ñu jëfandikoo jikko boobu voilà ñu def ñu jëfandikoo jikko boobu moom mooy mooy at tawba. d' accord professeur xaaral ñu jël alaaji Dame Diouf depuis Belgique. asalaamaaleykum Haj Dame. ñu ngi ñu ngi lay ziar bu baax di la di la masaw di la jaale li ñu bokk aussi. waaleykum salaam wa rahmatulah Seydou Nour ñu ngi lay delloo ziar yàlla yàlla na mu ziar. jërëjëf ñu ngi leen di baal wax di leen ziar. jërëjëf Diouf. di nuyu waa plateau bi di nuyu suñu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Kébé. maa ngi lay fay bu baax di nuyu Aj Malick. jërëjëf ñu ngi jaale njabootu Mansour Aj Malick yëpp. di ko tàmbalee ci xalifa bi. ak mhm. suñu sëriñ El Hadj Malick si Maodo. Mhm. yàlla na ko yàlla bàyyi suñu kanam moo ko dem El Hadj Malick yëpp. Mhm. Euh, di ñëw rek di daal tamit euh, suñu rak. muy soxna Roxay si. yàlla def maam. ñu koy marsawu. di ko daal li ñu bokk. ma indi rek benn seede ci suñu sëriñ. suñu soppe suma xarit yàlla dogaloon tofel bu. sincère sama diggante ak moom. Mhm. mu bëggaloon ma boppam. ndeysaan kay. may seere rek bis bis suma wayjur génne àddina. Mhm. ñu koy denc. Mhm. mu mel ni ci weer bi le trente juin. deux mille quinze. trente mars. trente mars mu ñëw. waaw mu ñëw armeer ya. sol grand bu weex. daal di ko si ma ci suuf. nekk ci suuf. daal di ne ku yàkkamti yeewi nañ la. Hmm. ndax fii ku fi toog dañ lay taxaw. Hmm. mu jàngal ko yaasin boo xam ne man mosuma ko dégg ci générosité hmm. euh, ci dolli ci maam. mooy euh, générosité bi nekkoon ci maam Ousmane. dal ko yàlla yokk ay leeram ak darajaam. amiin amiin mooy ak dégg. ouverture bu nekkoon ci moom. Mhm. maam yàlla dogal na ci njabootu maam si Hadj bokk na si ñi njëkk a jënd. ak mhm. dem a l' étranger di seeti gaa yooyu. donc ouverture bu teel am très tôt il a très très tôt il a visionnaire très tôt moo bokk na si ñi njëkk a tukki. Mhm. tey tournée yi sang yi di def. bokk na ñi ko initié ci kër gi. donc ñu xam loolu ci moom mu nekkoon ku déggoon ku déggoon jamono. mais ma indi ñaari beneen ñaari seetlu yoo xam ne dama ko fekkee. dañu toog julli ci euh, benn ajjuma xadara ba pare yàlla daf mu julli ñu mu jiite timis benn soxna su baax su mag nit ñu war ko di ñaan mu rocc soxna ci xëcc mu mu teg sama loxo ne ma joxal ma ko sëriñ bi ndax waxtu wi daaw dama fee ñëwoon doon ko joytu problème mu dépense problème mu location sax plutôt génne ci poche ñaanal ma na ma demal soxna soosu nee na ma ci la gëjee am problème mu location ba koroog ba muy dellu a waat ci moom. c'est ça waaye koroog nit mi moo bëri wala mu suuta jot ci moom. beneen bi may seedewaat ci moom lu ma fekkee ndax yàlla dogal na bu ma ñëwaan Sénégal. du ma xëcc moom ndax fa sa ajuma bu nekk ci fa lay fa lay xadara. mu am benn ambassadeur bu nekkoon Sénégal. bëggoon nomination léeg-léeg stafurla dafa amoon benn militant benn benn euh, ci dëkku yi nekk ci gox so bëgguma tudd tur ci ci dëkk yi jege Sénégal. Mhm. bëggoon ñu nommé ko dañ milité ci benn parti. Oh. ci seen parti am falu. Oh. mu ñëw seet si maam Ousmane. Oh. maam mu ñëw maam téye ko neuf heures ba six heures du matin. bi muy génn kër gi ci lañ ko ci lañ koy woo nawal ko nommé nañ ko lañ doon loolu ki ko fekkee teeweeg moom jour boobu kaka indi woon moo ma déposé pour wax rek mhm. que ni maam nit ñi euh, maanaam xamuñu ko woon. beneen bi may seetlu ci moom moom moom moo ma nettali ci jeexitalu dundam ci ci jeexitalu dund maamam baayam ak Abdou Dabakh nee na bi muy waay jéem àddina. Mhm. dafa xëy bis bis mu tëdd rek mu ne ko maam jàllal sama ginnaaw mu jàll ci ginnaaw mu ne góor gi di ko ci biir nelaw nee na góor gi di ko yóbbu ci ay asamaan. nee na étape bu ñu toll dina ko ne fii mooy bërëb sàngam fii mooy bërëb sàngam fii mooy bërëb sàngam nee na nag làkk yi ñu doon làkk déggu ko. mais mmh. xam na ni góor gi mu ngi koy yóbbu ci ay ci ay ay ay dimension moo ma nettali. Mmh. macha allah macha allah. nee na le lendemain bu bëggee jege góor ga góor ga ne ko bul wax. donc pour wax rek ni maam Ousmane dem nit ñi xamuñu ko woon. il a été inconnu ba ni mu fiy jógee ñu ngi koy ñaanal di ko séeréer. jërëjëf di ñaan yàlla ci bis bu tedd bi mu dem. ajjuma ji yàlla ko yàlla. pare ajjana. jërëjëf yàlla ko yàlla wane nekk Seydina Cheikh yàlla ko yàlla wane nekk way juróom. loolu lañ ci bëggoon seetal rek. jërëjëf macha allah jërëjëf Diouf jërëjëf Diouf. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf merci beaucoup. macha allah merci beaucoup Dame Diouf Euh, di di taalibe ci kër gi di. Euh, di jàmbaar nag di di di di jàmbaar lool. waaw jàmbaar na ci euh, xadra donc ñu mais en attendant ki nga xamante ne mooy. Mm. Mamadou Mboup daal di ñuy fekk si fii ci plateau bi xam naa dañ koy dalal nuyu ko rek ci kanam tuuti bu ñu kii dinañ tijjiwaat téléphone bi parce que. xam naa ñu bëri ñu ngi woote pour def li nga xamante ne mooy seen i témoignage mm-hmm. mais en attendant dañuy nuyu Haj Mamadou Mboup di la masaw li ñu bokk yow it di la jaale maam Ousmane si mi fi bàyyi ko jërëjëf euh, Thierno ñu nuyu leen bu baax ziar leen. Mhm. waaye tamit euh, bokk di partager ak yéen douleur bi nga xamante ni wàcc na ci askan wi yëpp. Mhm. ndax tamit euh, comme ni ma déggee sànq maa ngi commencé woon di suivre ci tele bi. Mhm. ni ko professeur ak sama sëriñ Seydi Hadji Malick Dieng borom alxuraan comme ni ma koy waxee. waxee rek ci moom dafay wane ni rek dund na dund boo xamante ni daal am na lu bëri loo xamante ni. Mhm. surtout humilité c'est important c'est important man dafa am marqué ci mom ndax dañu mhm. yoré suñu daïra. xayi Sacré Cœur de aja su koy muy mhm. ci ñom. muy siège bi du tok benn buñ koy soga mercredi bert bo xam duñu 20 personnes mais dina ñun ñu waxtaanandoo mu déglu suñu orientation bu paree. Mhm. mu daal di def synthèse ñaan jóg dem du fa jëlee dara. mais mu wane ni kon dafa doon ñëw rek. Mhm. pour jàpp ci affaire bi suuxat ko. Mhm. loolu nag koo xamante ni alaaji Abdou mooy sa waajur. waaw am na leneen loo mën a laaj. waaye fexe na ba moom loolu yëpp dàq na ko dund li nga xamante ni mooy taalibi bi te loolu rek moo am solo. yaakaar naa ni képp koo xamante ni xam nga ko. bokk ak moom jotaay xam nga ni moo la gën a woyof mhm. te Seydou Malick woyof dafa am solo ñoo ne ku wàccee sa bopp te yàlla rek tax mhm. yàlla ci boppam yëkkati la mhm. kon ñu ngi koy jaale le xale général de Tidianes ak mboolem njabootu maam Cheikh Seydil Hadji Malick ñu sant si ak ñu santul si parce que ñu ñu fi toog yëpp tey doomu Seydou Seydou Malick lañ xaq xatan te ñun ñëpp nangu nañu ne tey am na kenn ku jóge si ñun dembal Balzac yaakaar naa nag loolu kon ku ci nekk rek mën nga ko jaal sa morom mm-hmm. ma nuyu bu baax nag euh, professeur Thiamé Tidiane Kébé mm-hmm. di doon naa teewlu léegi waxtaan bi am na solo ak nag suma sëriñ bi ak Thierno mm-hmm. yow ndax tey dama décidé woon rek toog xaar académie ma ni gis nga lu lu nekk rek yàlla moom programme am mooy dox lu may solo sax na si ne ma foo jëm ma ne ah programme bi changé na nee na ñun ñëpp nañ dem ci télé bi et c'est ce qui est normal mmh. ñu jaale ko ñëpp jaale ko le PDG ak l'ensemble des travailleurs de Malika TV clairement. Maodo Thierno jërëjëf jërëjëf mu ngoog mmh. merci beaucoup ci euh, kàddu yi am solo yi nga xamante ne euh, yaa ngi ko doon euh, yëkkati nga ko fu mu nekk nii jëmale ko ci jëma ji nga xam ne moo fi bàyyi ko tey comme ni ko waxee ñun ñëpp ci njabootu Maodo la ñu bokk alors professeur mën nañ mmh. continuer fi ngeen nekkoon exactement waaw c'est important maa ngi woon ci martaba boo xam ne maa ngi fay Mamadou Mboup nuyoo bu baax a baax di ko daral aussi bu baax a baax eh, di dellu siwaat di wax rek ni ginnaaw bi nga xamante ni wax nañ ko léegi ni première jikko bi nga xamante ni nitu yàlla moom mooy mbubbam mooy mbubbam d'abord su ko defee yeneen ni ci des ñu mën a xool moom mooy at tawaadoo moom laa doon waxtaan léegi mooy modestie wàcc sa bopp ñaanal bi mooy at tawbatu tawbatu nag xaj euh, dafa am solo ci ci nitu yàlla ci wàllu tasawuf dañuy wax ni at tawbatu moom mooy ak taxaquq bi laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga nit ki su fekkente ni da nga da nga da ngay tuub dellu ci yàlla gis dellu ci yàlla boobu Hajj Malik mm-hmm. boobu nit ki saa bu tuubee rek dellu ci yàlla dëggal na baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce que tawba dañuy wax ni dafa nekk ci baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah dëggal ko ci at tawbatu dafa nekk ci ñetti degré tuub boobu parce que ak tawba du tuub d' abord xam nga tuub du question nag astaghfirullah rek bàyyi noonu. Mhm. parce que am na astaghfirullah boo xam ne sax beneen astaghfirullah waraat na ci. Mhm. nit ki di wax astaghfirullah d' une boo xam ni war ngaa waxaat beneen astaghfirullah pour astaghfirullah bii ni nga ko waxee ak ni nga tuubee donc nit mën nit dina dem ba toll foo xam ne dina tuubaat. Mhm. ci tuub war naa tuubaat tuub gi mu tuub parce que tuub gi mu tuub dafa ko ci anam boo xamante ni noonu la waree. donc nag taxaqu bi laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah sallam ñetti parti la bu njëkk bi mooy. da ngay def ar rujuu da ngay da ngay jóge da ngay def euh, ar rujuu ilal xaqi mhm. da ngay def ar rujuu minal xalqi maanaam mhm. d'abord lépp loo xam ne mbirum mindeef la mhm. lépp loo xam ne mbirum doomu aadama la dañ nga ciy génn bàyyi ko yàlla ne yàlla man yii yi nga xam ne doomu aadama yi moom la ñu xëccoo ci àdduna ci euh, kër yu bëreeg euh, mbooloo ak yu mel noonu man génn naa ci loolu bàyyi naa loolu oh. loolu loolu mooy premier degré ci ci ci trois degré wu ak tawbatu yi nga xam ni moo la yóbbu ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah donc su fekkente ni génn nga nga ni man yàlla def naa euh, ak ta euh, ak taxali euh, summeeku na génn naa génn naa ci lépp loo xam ne mbirum xalxalam mbindeef yi ñoo koy xëccoo ci àdduna rek mm-hmm. man génn naa ci mooy bàyyi lépp loo xamante ni ay wuute la yu doomu aadama yi di am su boobaa dëggal nga laa ilaha mooy baatu laa ilaha bi mm-hmm. xam nga daa wax laa ilaha illallah محمد رسول الله دونك صلى الله عليه وسلم دونك لا اله بي موي موي امول بن بن يالا لا اله امول بن يالا كون سو فكنتني لا اله بوب گم گكو مان امول بن يالا امول بن بور بو ني وارا جام كودور يالا موي لپ لو خامني مينديف ام نكو رك ياو دو داو تي مينديف با parce que bu yàggee dangay ngay nekk jaamu kooku da ngay bàyyee mindee fi loolu dem wuti yàlla loolu mooy ba bu njëkk bi mooy premier degré si laa ilaha illallah muhammadu rasul que donc ñun suñu dund yëpp bu ñu ganee àdduna ba bi ñuy faatu yëpp ci baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tënku mm-hmm. lépp lu ñu def nag ci wàllu tasawuf surtout tasawuf lépp lu ñu def ci jaamu yàlla ak bu mu mënti nekk rek génnul laa ilaha illallah muhammadu rasulullah donc donc premier degré bi bu soo ci génnee mooy a rujuu ilal xalqi mooy nga dellu euh, nga dellu rujuu min al xalqi mooy nga nga nga génn ci mbindeef yi dem ci borom bi subhaanahu wa taala boobu dëggal nga baatu laa ilaha te gis ngeen sëñ Mame man yi ñuy wax yëpp cest à ay qualité la xam nga ñun du ñu fi nekk naan euh, diwoo ko jur nangam ak nangam parce que loolu ñoom nekkul loo xam ne mënuñu doon dund mais qualité ak euh, axlaax yooyu nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale maam Seydi Hadji Malick jàngale ko ñoom loolu dañ koo dund ba moom moo waral jo doomu aadama yi doon mën a daw ci ñoom pour yaakaar leen parce que mm. doomu aadama su demee ba bàyyi yàlla ba su bàyyi bàyyee doomu aadama yi bàyyi lu lépp loo xam ne mbirum doomu aadama la dem wuti yàlla su boobaa bu wutee yàlla même bu am bu ñàkkul bu ñàkkoo bu fekkente ne amul koom-koomu àdduna mais nitu àdduna yi ñooy daw wut wut si ko mhm. Mhm. loolu nga dégg témoignage bi nga xamante ni Hadj Dame Diouf wax na ko nit dema ba nit ki am problème mu dépense ñaan yow da ngay ñaan yàlla parce que lu tax mhm. yow da nga seet ci yàlla bàyyi nga mbindeef yaa ngi ci yàlla donc bàyyi boobu nga bàyyi yàlla mooy yàlla mooy sa bët yàlla mooy sa nopp mooy sa tànk Hadj Malick loo wax rek yàlla la donc soo soo bëggee rek yooyu yàlla day day bëgg donc dimension boobu nga ci toll mooy la ilaha deuxième degré bi ci ak tawbatu nga xam ne moom mooy ginnaaw bi nga jógee ci la ilaha mu des illallah illallah boobu mooy ar rujuu ilal xaqi